li ñu fi indi mooy ñëw wane suñu naqar ànd koog doomi njaareem yëpp wane ne koom-koomu njaareem dañ ko joxe te yëguñu ko suñu pétrole ak suñu gaz. alalu Sénégal gi ñu ngi koy pasar pasare entre Aliou Sall ak Frank Timis am na ay teeni pétrole yoo xam ne joxe nañ ko ci réew mi te amuñ ci dara lu ñu leer. loolu moo tax tey ñu organiser rassemblement bi ngir ñëw fii ngir wax waa njaareem non seulement li xew. en plus de cela aussi laaj nguur gi mu indil ñu ay leeral ci xaalisu Sénégal bi ak ressources naturelles yi nga xam ne joxe nañ ko loolu moo ñu fi indi parce que gis nañ ne rakam Aliou sàll ak fameem dugg nañ ci mbir mi li nga xamante ne bii moom mooy ressources naturelles yu Sénégal yi ñu akimoo ko ak Frank Timis mu doon loo xam ne nag ñun tey suñu warteef la en tant que doomu Njaareem ak doomu Sénégal ñu laaj leen ay information ci li nga xamante ne bii moom moom lañu utiliser suñu ay ressources naturelles. waaw commencement la xam nga tey tàmbali ma tàmbali la je pense que information bi bu jàllee ba ñu gën a gis li nga xamante ne moom moo xew ba jeunesse su Diourbel conscient que ni seen pétrole mi ngi fi jël nañ ko joxe nañ ko depuis 2013. ba ñu xam ne am na seen koom-koom boo xam ne au niveau national état du Sénégal mi ngi koy pasar pasare je pense que nit ñi danañ gën a génn parce que ñàkk xam rek la waaye bés bu ñu demee ba xam. dinañu génn gën a wax ak nit ñi gën a ñëw wane seen pas-pas ak seen participation.